jeudi 27 février 2020 ñu ñëw ak ñun ci yëglikaay yi moo xam suñu làmb la journal record wala yëglikaay bi nga xam ne nii moo di Les Échos ba ci Leewtoo TV fu nekk rek ay xibaari làmb ñu nga fa xëy tey bu dee yëglikaay bi di sunu lamb la bu Alioune génnee di def ay proposition maanaam daal ci mbirum roi des arènes mi ñu tegaat ko xool ni ñuy def pour bëriwaat ko daa mel ni nag waxam jooja day ne leen rawatina nag ña nga xam ne roi des arènes bi actuellement ñoo ca teg loxo di waa parcelle que xëy génn wax nag mooy Khadim Gadiaga Khadim leen ko sa wax jooju de yow docteur Alioune Sarr yow la intéressé waaye ñun moom loolu ngay wax intéressé unu tey suba waxi nopp te dañ koo sax deful ñun suñu mbër la ñu yor xiif moom xam nañ ko te noo nga ca waaye daal pour jàpp jàpp carrière Modou Lo jaxase ko wala di ko yàq xaar nga ne ko loolu du am li leer ba leer daal ñoom ñooy roi tey suba waxi noppi ndax ku daan roi roi nga loolu waxi ki nga xam ne nii moom moo di Khadim Gadiaga mu mel ni kii nag wax jooju moom bëri na ñoo xam ne tey wax nañ ci ndax buñ demee ca Les Échos du jànjee ko tamit mu ngay wax ci mbirum roi mooma na leer ba leer daal roi des arènes moom fi mu nekk nii moom li am ba des mooy ki ko doon mooy Modou Lo te waa CNG li ñu war a def mooy encadré ko ànd ak moom xeex li nga xam ne mooy violence bi ci làmb ji ak lu mel kii noonu ndax ne na Manga 2 moo ko doon doonoon ba mu ko doonee bàyyi lamb yóbbu ko dellu siwaat bëre Tyson daan ko nekk roi kon ne na la mbir yi tamit ku daan roi yaay roi ne na moo gën sensee nekk fi di wax seen wax yi nga xam ne daal moom daa jàpp ne lamb ji daf leen a raw loolu mooy wax ki nga xam ne moo di du jànjee ko ci yëglikaay bi nga xam ne modulise ko yemu ca Yékini it mu nga am lu mu koy wax dana ko li leer ba leer daal bu leen def ay critique am te bokk ci bureau bi dana ko na koy defee ca biir réunion yi moo gën a wóor ko wax moom dana loolu amul sens ndax bu ci loolu am dana ko kon da ngay démissionné nga génn wax li nga bëgg wax loolu ñu wax ba tey ci journal bi nga xam ne modulise ko Bombardier nag ñu ne ko la mu mu ne Bombardier la mu wax na ndax moom mbër la moo yor di bëre te ci démocratie la ñu ne moom bu ko neexee wax la mu wax ndax bokkul ci benn bureau moom mbër la mu yor nekk ci làmb jiy bëre loolu waxi ki nga xam ne moo di du jànjeex ko ci yëglikaay bii nga xam ne nii moo di léegi ko leneen loo xam ne tamit wala keneen koo xam ne dañuy demaat ci sunu làmb fekk ko fa muy ngañ jaañ bu E-Media wala i ITV ngañ nag moom jàpp na ne problème bi am ci làmb ji nee na Balla Gaye 2 la ko accusé loolu daal moom mooy wax ki nga xam ne nii moom moo di ngañ jaañ jàpp na ne Balla Gaye mooy principal responsable bi loolu nag ay waxam la du samay wax Ngagne Ndiaye moo wax wax ju mel noonu waaye bu ñu continuer dañuy dem fa nga xam ne nii nag moo di ca journal record kañ fay fekk mooy docteur Alioune Sarr Alioune Sarr nag moom la mu waxoon daal ci wàllum écrit yi wala boog mu jàpp ne bi nga xam ne moo di Fass moom nekk na boo xam ne exemple la ci lamb ndax warees na ko roy ci côté manager yi ndax jàpp na ne ñoom day seen manager duñu ko rax maanaam daal maanaam sama ci écrit ba lay yem mbëri écrit ba lay yore te itam saa yu CNG bi ubbee danañu bind seen këyit andi wax leen ni ren ñi lay seen ay mbër waaye nee na loolu moom amu ci yeneen écrit yi moom maanaam ngay gis écrit bu ne lu mat fukki nekk fa ku ney dogal wala ku ne yor mbër maanaam daal mbir mi nekk loo xam ne sabar bu tas lay xaw a niru kenn du xam ban tànk ngay fecce ak booy daaneele mu mel ni nag fi mu nekk nii moom wax jooju jóg na ngañ jaañ nag wax na ci nee na li leer ba leer daal li mu existe wala boog moom li mu xalaat xanaa écrit bu ne boog war na mën a am boog ñaar ci ay manaat si écrit bi nga xam ne nag moom judd na bay préparé boppam muy ki nga xam ne moo di Papa Sow écrit bu bees ba yëglikaay bi di record ne na place bis yaaw ba daal fa la nekk par ngoon di lijjanti seen bopp di xool fu ñuy daar ba daan si fu ñuy jaar ba daan si ta ñoom laay Pythagore ñoom Franc ñoom Gorosep kenn du des ñëppay ñëw di ca jàpp Serigne jaay nag ma nga xam ne léegi moo nekkoon ancien mbër ba te nekkoon ancien entraîneur Fass moom lañ nommé kon directeur technique ba nga xam ne daal jël na ay fonction Balla Diouf moom ma yore wàllum làmb dóor ba ca fa nga xam ne ni mooy cëkri boobee daal Balla nag la muy xam ne daal ne na daal moom projet bi mu gis cëkri bi moo ko daal maanaam xëcc intéressé ko ba mu ñëw bokk ci fas ci yéenee jàpp te Papa Sow itam rakkam la ndax ne na leen ci début carrière am kër ñoom Papa Sow la daan ngemboo magam Oussa Sow yóbbu ko ak papaam mu bëri ji ne na kon tey bu ko Papa wooyee moom waxtu bu daje gertu la doom day ñëw rek la olof naan na ma ceebu ca lay doon ku ma ca ba damay daal di jël ka nga xam ne nii moom namm na ca ba yebu ca muy Fara di ànd Papa Sow di ko jàppale guddeeg bëccëg ba fay sax dëkk ak moom mu mel ni ki nag ci gëstoog Abou Ndour moom li leer ba leer kenn ci écurie ba nga xam ne ca la Fara bokk ca kilifa di parcelle mbooloo ñoom daal wala boog ci écurie nga xam ne nii mooy dóordóora ñoom la ñu xam ne daal mooy ki nga xam ne moo di Fara moom li leer ba leer jàppal daa mel ni fi mu nekk nii ber nañ ko ndax doxalinam booba nga xam ne daal moom lay doxal daa mel ni ànduñu ca ñoom ndax gisatuñ boog ay bët déggatuñ ko loolu mu nga fa nga xam ne nii moom moo di ca record waaye dañuy dellu ca sunu làmb de ba tey ñëw ñëwaat nañ ci Yékini Yékini nag dañ koy wax ne ko daal ndax Yékini waxal lu leer da ngay toog seen sa wala da ngay démissionné loolu daal war nga koo leeral askanu làmb loolu mooy wi nga xam ne nii moo am la ab laaj bu ñu xëy sampal ko ko foofa ca journal sunu làmb idaali ñu ngi moom ñëw na ca làmb jëmu tëgg diggante ñagas ak caatuwàllu samedi ne na daal affiche bu baax a baax la bu neex neex lay itam te bu nar a neex lay doon ngir amateur yi buñ ca yeggee kër samedi benn affiche boo xam ne tam le premier mars lay am fa nga xam ne moo di ca bar ñi ka fa jaar nag moo di Assane Ndiaye mu mel ni diggante ba du faal numéro 2 lay doon ak ki nga xam ne nii moo di Libidor numéro 2 loola moom bari ñi géej lay amee ci sam ci dimanche ji nga xam ne ca la ñu jëm loolu mu ngi ci yëglikaay bi nga xam ne nii moom moo di sunu lamb waaye neen ñoo xam ne tamit le premier mars ca Thiès dañ fay defante muy laay laay goote rak ki Moodu Anta ak daa bu Texas ñoom itam de seen seenu defante ñu nga koy xaar mu nekk lu nar a méttee méttee méttee sëñ Moodu Ñang moom taxawal na combat espoir Saloum 2 ak ki nga xam ne moo di Petit Baye Fall daal la taxawal waaye bu ñu demee Leewtoo TV moom ñu nga fay fekk ka nga xam ne nii moo di càmm production ak le 15 mars combat ba nga xam ne mu koy waajal dox diggante ki nga xam ne nii moo di gàmmu géy bu léwu soq bu ginnaaw raay rakki njët li ñaari mbër yooyu ñu ngay waaj waaye ñu ne rëbëre spécial ba ñoon noo fa nga xam ne moo di ca Leewtoo TV di fa waxante doomu Faas ak Paul bu daaru Mame Mor ne na ko baat bi soufflé ci sa kaw laay dal dama lay def lu méttee métti Paul ne ko yow moom wax lañ la xamee te jàppal ne ki dàq bëre ki dàq xeex yal na am ndam kon Paul jàpp na ne du moroomu Mame Mor tey suba waxi noppi ndax ne na ko dugg naa seen écrit daan fa ñaari mbër te yow mi laa cay teg mu mel ni kon daal yàgg maar li jara bàyyi xel te jara waaj mooy diggante ka nga xam ne nii moo di soq ak ki nga xam ne nii moo di jam téeri la 15 mars lay am waaye samedi ji itam day nar naa jax ndax ka nga xam ne nii moo di idaali ñi day wàcc buñ ca demee dimanche ja Assane Ndiaye wàcc bari ñi ñu ne déet ne waaye Gibson production wàcc arène nationale diggante Tigo ak ki nga xam ne nii moo di booy Dakar moo mel ni ki làmb yàgg maar làmb ja jax na waaye tontoo jaw yàgg calis laay waxal waxoon naa leen ko ku yokkut da ngay dollim ñeex booba bañee put yi fot loolu laa leen di wax. moo ko waa Leewtoo TV ñu ngi di la sant ba wax si revue de si jàngat ak bi Babacar maa ngi lay nuyu di la si sa victoire <laughs> wala <laughs> ah, di la wax merci jërëjëf am na ah <laughs> euh, c'est lenn rek moom moo am si sport la nekk quoi sport nag dafa am ay lois. am na défaite am na match am na victoire dem nag loi bi wàcc suñu kaw mooy loi wu suñu biir terrain di di Santiago ñu koy muñ ah, di ko digérer parce que sport la ñuy def di en di féliciter ñi nga xam ne ñoo ñu gagné muy waa City ak ñi nga xam ne tamit ñu ngi woon ci biir di sot parce que <laughs> comme li may wax rek Real moom seul contre tous la mais nag c'est normal parce que treize Ligue des Champions euh, meilleur club du monde loolu mënul ñàkk quoi. c'est normal. bi ngeen koy liggéey champion xale yi sax juddagul léegi xale yi sax léegi maa ngi ba joxe école. Ah, léegi dafa xëy nga xam ne mooy Khadim Gadiaga Khadim Gadiaga dafa mel ni dafa xëy nag nga xam ne moom mooy Anissa nee na ñoom bokkuñu si tournoi euh, roi des arènes tey bokkuñu si suba nag Babacar. waaw mais balaa ñu joy dugg dinañ leeralaate parce que wax waxaat du bëri wax wax la na nga bi ñu koy gagné xale yi juddóoguñ cinq ligue des champions yi mujj am nii cinq yi mujj am trois yi ñoo ko

day des parce que mbëri dañu daanante yaa ngi dégg suñu demee ba toll ci war koo def moom yaakaar naa nañu xool li nga xam ne moom ñoo ko war a si ñi ko war a set parce que amateuru lamb yi du ñu ay dof ñu ngi ci réew mi xam nañ lu xew yaa ngi dégg Babacar miy wax micro wala Ndeye Coumba Fall wala ki jiite wala ñiy bind fii gënuñoo xam lamb ñi nekk ci tuusi di seetaan si lamb bi xam nañ bu baax a baax réalité bi kon li am solo daal mooy Xaadim moom wax na li mu xam wax na li mu gëm wala li mu jàpp ne moom la ñu war a def moom seen bër tey la ñu défendre ak seen écrit mbirum tournoi intéressé wu leen ah kon mbir maa ngi noonu na ko ñëpp dégg noonu waaw. keneen ki nga xam te moo gën nag euh, tamit euh, di sànni ay xeet mi mooy ki nga xam ne mooy ngañ ñaay chroniqueur de lutte la moom daal mu gis nee na euh, làmb yi nu situation crise làmb yi yëpp kenn waral na ko lu dul Balla Gaye jël nag Babacar mu ne nag lu xaw a doy waaw loolu de ndañ daaño ko wax xëy na nag am na fu mu ko teg man lu may wax rek li sa dina wax waxam du ma jàpp ne xëy na xeer la jóg norme football wala norme basket wala norme handball wala MMA norme boobu la arène bërikaay war a am non non bokkuñu ay réalité quoi xëy na ngay euh, kii buy wax euh, nu ñu koy waxeeti lu jànjee ko suy wax ci côté boobu lay waxee pour ma Babacar nag suñu jógee fi nga xam ne mooy les écoles yi dem si euh, fi mooy record record na mi ngi des toujours si point de presse bu Alioune euh, am na 665 te 665 lutteurs 26 managers kese ñoom na leen di manager manager moo tax na journal bi samp laaj ne est que tey jii yoonul association manager bi nga xam ne Bassirou Ba moo ko a pour nag affaire bi gën a yaatu ba ah waaw loo si mën a dégg daal lu jar a wax la parce que tamit mbër yu toll noonu ñu ne naa daana ménager leen di ménager yaakaar naa bon mbir yi am na lu ci nekk les waxul wax la am na loolu nag mhm. ña ko yore ñoo koy dox saytu ko jéem ko seet xool yoon ñu def ko parce que tamit kenn ku ne bañ a def ngir son bopp kese waaye ñu def ngir intérêt commun maanaam def intérêt général loolu moom defe naa ne bu ko defee ci ménager yi dana baax dina nekk tamit luy gën a apporter mbër yi njariñ parce que ménager moom mooy ki nga xam ne nii moo gën a sonn ci mbër moo ko entraîneur ndax li tax moom entraîneur a yeewu fajar nekk mbër mi ci géej di tàggat manager mooy ànd ak mbër mi ba muy fayeeku dix mille ba mën da fayeeku di yëkkati alalam sax di ca def kon ñooñu itam yaakaar naa ne seen kuréel lu ñu ko gën a defar pour gën a mën a encadrer mbër yi mbër yi gën a mën a tege ci aw yoon defe naa ne pour ñu yokk bureau bi defe naa loolu pour man xel war na ko mën a nangu daal mhm. Babacar nag journal mu nga xamal ne ni Papa Sow mi ngi préparé foofu si plage yu Bessayaaw bi foofu si te mu nekk Yoff nee ñu jàppale si contact bi mel ne mooy lay lay pédagore ki nga xam ne mooy Goroso Ban. waaw loolu de xel na ko Papa Sow ngay préparé Bessayaaw franc nga fa Goroso nga fa lay pédagore nga fa ndax ah, loolu ñoo bokk parcelle te itam ñooñu ay rakkam lañu kon daal yaakaar naa ñoom ñu ngay préparé si diggante ak Siteu daa mel fi nekk dafa mel nag loolu nag muy defa Papa Sow muy ki nga xam ne mooy Franc nga xam ne moom la nekk dañ ko daal ko bet ne ko da nga dem toog ba ñu xool sëñ bi a ñëwaat si écurie ba maanaam kon daa wàcc sartu écurie ba maanaam moo tax ñu ber ko ne ko toogal ba heure jot ñu xool sëñ bi ñu koy saytoo mm. waaw la ma leen di wax nag mooy nañu waxtaan rek Franc doomu parcelle la ñoom yor écurie ba ay doomu parcelle lañu te itam Franc ci li ñu xam ñun ci nit ak li ñu seq ak moom gisuñ ci moom indiscipline loolu nag su amee ñi yor écurie bi itam defe naa ne ay kilifa yu mat lañu ñu doon nañu kon defe naa foofu la fa war a am mooy ñu waxtaan rek fexe mu rafet pour que ñu mën a ala awaat ci yoonu liggéey quoi. Babacar jeexee na ak Balla Diouf bi nga xam ne moom bokk na si coach écurie bi nga xam ne moom la euh, Papa Sow di euh, moom la Papa taxawal mooy euh, mooy Wrestling Academy moom nee na nag la mooy nga expliqué si journal bi lan moo tax mu choisir dem jàppale ki nga xam ne mooy Papa waaw loolu daay wax na ko moom kani moom kani liñ ko wan ci projet équipe bi doy na ko li ci des mooy magu Papa Sow bi Goussa moo ko dugal ci làmb ay combat yu njëkk sax kër googu moo ko dugal ci làmb ay combat yu sax kër googu la ko ngeen boo dem ñu yóbbu ko mu bëre muy Goussa ak papaam ma jur Papa Sow kon moom jàpp ne réalité yëpp war ko ak Papa Sow loolu tamit defe naa ne xel nangu na ko ah nit ki moom àddina moom kóllëree fi ne damay wax chaque jour que ne rek nday ma faa nit ki fi ngeen jaar ci rafet même bu problème amee seen diggante andil lu rafetul démb teg ko ci loolu tey pour que ngay mën a jéggi problème boobu jàll mooy tax balonte am jéggalante am jéggalante am yaa ngi dégg mais nag li wolof yi wax day gumba faal booy xuloo wax lépp bés bu juboo jotee na nga problème moo tax daal yàlla na jàmm yàgg yàlla na yàlla def tamit réeroo mënta ñàkk waaye yàlla na yàlla def bu ñuy gindikoo mu rafet daal jàmm ngay Papa Siteu aussi depuis États-Unis maa ngi lay nuyu di nuyu ki nga xam nag mooy Aliou Ndiaye tey woon dama ne Ramos parce que Ramos nga carton rouge démb donc naan Aliou Ndiaye rek maa ngi lay nuyu depuis Italie aussi. boo waxut Ramos sa affaire dana yàqu yow moom xaw ma ko Ramos jigul waaye Ramos jig na ndax Ramos buñ ko carton rouge itam waaw non de du ma du ma génn de Ramos buñ ko carton rouge itam la ma la waxoon la rek lu waa ko dab daa def lu yoon di tere ñu ñu ñu ñu ne ko génn terrain loolu nag jour bu ne la mën a dal Ramos moom mooy suñu capitaine te nous sommes fiers pour Ramos Sergio Ramos ba ca Real waaw man moom comme lu may wax rek maa ngi félicité waat supporteru City yi di encouragé supporter yi nga xam ne ñoom laa bokkal Real yaa ngi dégg àddina moo tëddee noonu di nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ñoom tuuti yaay sax du ma leen fàtte ñoom Khady Rose Ndiaye Asi Diagne sama naar bi ci noir sot waa ànd jàppoo si bi may entraîné maa ngi leen di la rawatina le coach Demba Ciss ak ñoom Ndiame ak jigéen ña fa nekk ñëpp nuyu naa leen ñaanal leen jàmm waaye ki nga xam ne nii nag moom moo di Babacar bu Modou la ma borom peter sen li may sol ci lu rafet lu ci bëri moom ma koy jox moo tam làmbaayu Cheikh Sène maa ngi koy bëggee di nuyu ñëpp ñuy siiw waaye ki nga xam ne ni mooy Mamour Kandji defkatu lu baax boobu doomu ndeyu Saliou Khoule te Saliou Khoule di sama soppe Mamour Kandji yàlla na sa jàmm yàlla waaye Saliou Khoule borom Zik FM wala fa ko wax ku la yëkkalati xël nga yàkkal ko gën ndax ñooy mi bàjjoon ñooy mi gàjjoon yaa ma bëgg waaye maa la bëgg biir yàgg maa yàlla na jàmm yàgg say su rafet na inşallah.